man daal dama toog sama xel mi xaw a jaxasoo. ah bon. ci deewu zaal bi ma bëggoon a xam zaal nan la deewee daal. xaw ma ba may waaj a gis si laa yëg ni dafa nekkoon di jaay médecin yi xool gisuñu ci moom dara ci lañ ko yóbboo ci maam yàgg. maam yàgg meen. kat bu kon ñoom dañoo jéem jéem tële looloo tax ñu daw ñëw fii. xamna lépp ndax liggey bi dañ ko waroon a tollanti loolu képp moo waral li xew lépp. bam yag nga xam ne li muy woote nekkul ci moom. déedéet mustafa buma ko déggati la wax sa gemi kenn waate keur ga. dafa am ben malade mo wara dem faj. sa papa da la soxla. Fanta waaw. mais yow yaay kan bay ñëw suma kër di ma laaj suma doom. jàppoo leen ko noonu rek dafa ngeen ne daal lu seenum nawle bëgg rek te muy ab jullit ni yéen ngeen fexe ba xañ ko ko waaye nag ku tedd kenn gën a baax nañ dem. waaye yow pare waatoo pour am beneen borom kër. ceetu yow daal sa gémmiñ gi moom goro moom rek léegi waa may ma génn may génn sama nekk. sans biir sax nekkul ci dëkk bi voilà mi ngi bitim réew profitons du moment. yelloo ma jëf ju ñaaw ji nga may jëf wante nak bu fàtte ni nga nekk ci buumu sey lundi sur Kémane Vision.